man à la limite le sujet ne me fait pas peur parce que pour moi, il est important qu'on discute qu'on arrive à discuter avec le sujet du monde. Mhm. war nañ ko pas a mais tek ko rek ci xam-xam ak mhm. développement Bousso mu wax leur opposition effectivement aux confréries ah waaw wax ci idéo ak seen opposition bi ñu am ci seen gis-gis ci lislaam mais wute gis-gis mën na ba a indi woro mm-hmm. effectivement mm-hmm. fuuta laa jëm fuutal nga jëm bokkuñu ay yoon ferlo ngay jaar man ma jaaree ndar mm-hmm. mais fuuta lañ jëm rek le plus important mooy nañ yegg fuuta ba mën a dox suñu soxla biir fuuta pour moi, c'est vraiment important Moi, américains espace pour entre foi cest à dire mais ils discutent de ce qui les rassemble ils ne discutent pas de ce qui les divise mm-hmm. parce que ce qui nous divise peut également moi, suñu nous li li moi tar moy suñu tar tard, mbir wouté bu mbir ñu am une différence. moi je le perçois comme une beauté. pour man lol tar la. ñu ci waxtaan. ah ñu ci waxtaan parce que effectivement tay lawbe ni muy ak niko la bi di du lawbe te mu wis et ça c'est vraiment important. Mhm. pourtant.

on a des courants de pensée yi nga qui effectivement jóge na fait ñeu fi parce que effectivement tout nous vient de là-bas. finalement eh, oui tout nous vient de là-bas. mais li fait nit ñi aussi ñi fi nek ci approche locale man amna sañ-sañ man bi commencé di rap fekk di rap nan hardcore gangster mais man dama na rap faire lay def parce que pour man il fallait désaméricaniser le rap le hip hop sénégalais non c'est un il fait du rap comique alors que moi j'étais man voilà fait fi Eminem Diakhoumpa Radiga Perera Snoop Doggy Job, pour pour un peu ŋàññ sama moroomu mon yi nga xamante ne un rap comme Américain Il faut que je gis mais dans la joie et on a créé un courant qui s'appelle dëggantaan di ci topp loolu génnewuñu ci rap bi pourtant il y a des fondamentalistes du rap des puristes du rap etc. etc man. Je mon également sëriñ yi dañuy alerter kilifa dire yi dañuy alerter ci seen rôle lañ mais alerte pour du ñoom kese ñoo ko war man en tant que rappeur je dois le faire avec mes éléments de langage parce qu'il y a un public acquis à ma cause et à mon outil am na ñi nga que ne effectivement xëy na ci taasu la nous sensibiliser Youssou à travers ces chansons il a fait énormément de travail de sensibilisation de même il a même anticipé ce qui concert bi organisé pour les Lions au-delà de la dimension commerciale mais c'est une manière de les honorer de dire que effectivement équipe nationale A Moussoul, gagné dara on fait le focus sur l'équipe nationale B euh, sur l'équipe nationale A alors qu'il est important de galvaniser l'équipe nationale. les locaux les locaux xam nga loolu dafa dafa am solo. Ah. mais la paix. def nañ ko fii mais mais dama ne la paix. elle vient d'où elle vient de la vérité. Mhm. parce que alxuraan moo wax ku lal xaq walal kaanu mu ran ku la gën a ñeme ah xadis la. ba nga baal ma waaw ay ma <laughs> xadis wax na ni xulal xaq walal kaanu mu ran. boobu sax wér wér mooy xulil xaq ala nafsika. alhamdulilah mooy firi lan waxal dëgg doonte def dal sa kaw. très bien xam nga xaqu rek malal waaw xaqu. waaw xam nga dëgg dafa bokk tur yàlla xam nga la vérité. kon alcorane la mais la vérité mais la vérité. pour ñu tok ci contexte biñ tok elle émane de quoi. Mhm. elle émane du respect des lois. oui. de leur application équitable. Mhm. la vérité. Mhm. lan la l'islam wax ci effectivement njiit buy j'aimerais bien te poser bu dul bu respecté wul effectivement buy woro cadeau par exemple malen di watelma, ngén woluma ma ma fal ma manelen manelen duma def ñaari duma def ñetti mandat duma def mu donte mais samay nit ñi and ak man ñu ngi wax ni man dañ may pousser forcément sax xëcc sama loxo pour ma def troisième mandat mais te man waxoon naa ni donte binduma ko ci téere mais waxoon naa ni non bind naa ko sax ci téere parce que téere aussi c'est dans le livre donc loo bind wax ko ëllëg boo waroog li nga wax lu ci diina wax lan la diina wax ci kilifa boo xamante ne dafay waroog li wax c'est c'est important que le débat soit posé parce que effectivement l'islam bëgg jam mais jam dafa am ci kaw ci ci dafay lalu ci kaw deug fu deug amul jam du fa am. très bien dëgg fu mu amul jàmm munu fa am. loolu alcorane il est important. Mhm. il est important quand même de le souligner. Mhm. il est important de dire que effectivement de nous poser des questions qu'est-ce qui xam nga la dernière fois je l'ai posé euh, j'ai été mal compris par exemple tay lan mo xew nous avons une crise de, mu am une certaine crise Tu vois le top. avec mal il se passe fondamentalement quelque chose parce que nos jeunes sont en conflit il y a un conflit clair entre nit bu bëgg dara amoko et la foi. est-ce que ku m'a mar nekk situation est-ce que foi foi, mooy règle problème problèmes amna ñoo xamantene ils ont des problèmes ponctuels leur problème ce n'est pas du wax ni man damay julli gu damay julli ah man damay sax na filer de temps en temps Hein? mais dama bëgg wax ni en fait amna ko xamantene sa préoccupation oui les questions de foi ça am bëgg nako euh, l'intérêt mais du priorité donc bëgg ñu waxtaanee en fait crise qu'est-ce qui est arrivé à notre société. Mhm. qu'est-ce qui est arrivé à nos à nos jeunes. d'où vient ce manque de respect. Mhm. elle a une origine. English ou arabe. Wow! waaw ah, ah, euh, manque de respect a am manque ñàkk war ñàkk war ma boobu origine am. Mhm. jékki-jékkiwul rek ne cëpp ci penc mi lu waral question pour man on doit se les poser et trouver des des réponses objectives waaw donc loolu laa bam, bam. bam